sëñ bu ñu la bettoon rek ne la kan mooy sëñ Moussa Bachirou lan ngay wax. li may wax bari na waaye daal xam naa ne jullit xaqan bu sàmmug njullitam te rafet la ko murid saadiq bu gëm sëñ Tuubaa te liggéeyal ko patriote pur bu xam lan mooy patriotisme panafricaniste jullit xàqan lépp a ngi ci jikkoy jullit nga yor murit saadiq murit saadiq kenn mënu koo doon te jono du doonoo jullit xàqan mënta nekk ak murit moom berwul ne dangay doon jullit dangay ngay da ngay nekk mu'min da ngay nekk muslim da doog a nekk moxsin te moxsin moo rib taalube moo tax ma ne la dama naan la jullit xàqan a ngoog waaye murit saadiq a ngoog patriote pire bu réewam jaral lu nekk loolu nag mën nañ fee fanaan lenn lu ne mën naa la indil firnde di la jox la ci silaay la bu ma nee la jullit xaqan la fekkee naa mu def nangam ndax it euh, dañuy wax walay sal xabaru kal man ma waaw voilà man sëñ Moussa ma yar. rek waxtu wi. waaw jullit jullit mooy melokaan wi mu amee woon boo nekk ak moom xam ne ab jullit nga nekkal. lu bon lu ci maslaa bis boo ko fësalee ci biir këram ngeen tàggoob yóbbal. lu yàlla gërëmut xiirtal la ci jaamu yàlla sëñ Moussa bi muy sawar man daaru minam Saalum buñ ñu fa masaana dem bu fajar jotee ak buum lay yar lay yor moo yee ñim àndal ngir ñu dem julli ji <laughs> loolu ku ku ku diine jaralut du la ko jaral ci mag mu toll ne moom kilifa gu toll ne moom nga xam ne man ngaa yónnee ne dem leen yeegoro ñu julli ji waaye nga jugal sa bopp yoru buum ñëw ubbi fi ñu tëdd kenn ku ne nga di ko ko dóor ngir mu dem julli ji fajar foofu la njulit mën a ak yeneen jikko yoo xam ne bis boo ko kotuwaay rek xam ne jullit pire a ngi nii njullit gi moom foofu laa koy teg murid saadix gi moom sawaay Ibrahima man ak yow ak Ceerno meeg saawaay ji ñun ñëpp ci bokk yam xam nañ ne sëñ Moustapha am murid saadiq la bu dëggal ci digganteem ak sëñ Tuubaa li danaa la ci jox benn firnde képp mu yóbbaale yëpp mooy soxna Fatou Thiaw nee na ma dama ko rabal ay mbaxana ci ci wëñ gu weex defal ko ay laar ndekete da ci rabaloon sëñ Bulaat sëñ Moussa jógee këram dem Touba Belel di ji sëñ Bulaat fekk ko mu sol mbaxana yi soxna Fatou nee na bi mu ñëwee dafa dafa ubbi wëlisam dajale mbaxana ya ma ko rabaloon woo ma mu ñëw mu sànni ma ko ne ma yow da ngaa jàpp ne sëñ Bulaat sama nawle la ba may rabal mbaxana yu ami laar di ko ko rabal moom te moog sëñ Bulaat bokk lépp. sëñ Abdou Lahad waaye ñoo bokk sëñ Tuubaa ci wàllu meew nu ñoo bokk lépp ndax ma xudda ma xujja faafaal jaxate ak mu du asta jaxate la ma xujja faafaal moo jur soxna Binta jaxate mi jur sëñ Moustapha mu du asta moo jur soxna Marema jaxate mi jur sëñ Abdou Lahad kon mbokkam la kon pësteef boobu sëñ Tuubaa képp la ci xool bu ko sëñ Abdou daan woo téléphone sëñ bi balaa jël téléphone bi day toog ci suuf summi mbaxana mi sëñ Abdou Lahad ne Tuubaa gii mu ne njaareem teg naa ci sama bët teg naa ci sama bët sëñ Abdou Lahad ne njaareem gi di ko tuubaa di ko woo téléphone sëñ bi nekk njaareem ñëw di ko wuy si jël combiné bi sumi mbaxana mi toog ci tapp bi doog ko ne waaleykum salaam loolu fekke naa ko donc loolu dooy na ci ne am murid saadix la xanaa sëñ sëñ sëñ Bilaay looloo taxoon sëñ Bilaay daan wax naan wird xaadar ak wow wow tijaan wu ma ci jël wépp baax waaye wu ma ci waaye bu ma ci moo tax mu waxoon lool loolu li mu doon firndeel rek mooy pas-pasu sëñ Moustapha ak dëgg la sëñ Moussa murit la woon xam murit saadix la woon teyit yow gis tey nag fi mu ne moom ruux gaa ngi rot nag bi mu ne amantu annahu laa ilaha illa allazi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin Seydina Jibril tim ko ne ko alaana alaana xat asayta qablu wa kunta min almufsidin déedéet c'est trop tard nag wa innama tawbatu ala allahi alladina yacmaluna suua bi jahalatin summa yatuubuna min xaribin fa ulaika yatubu allahu alayhim wa kaana allahu aliman xakima waaye nag wa laysati tawbatu lilladina yacmaluna sayiati xata ida xadara ahaduhum almawtu qaala inni tubtu alaana wala alladina yamutuuna wahum kuffaaru ok sëñ Ablaye euh, euh, li ma sëñ mi ngi may signalé ne xam naa ne waxtu bi ñu rekk jotaay bi waaye xam nga man li ma dal ci yow mooy li daloon euh, imaamul Xasaali yi bañ ko teewalee rek dafa am yoo xam ne loo ci gën a waxtaan sa bëgg sëñ Tuubaa di gën a dolliku te yow sama diggante ak yow bu ñu lii rëccee bu ma ko amatee maa ñëw Poroxaan fekk la fa wala occasion yi mel nii moo tax du ma am sago ci bu may waxtaanee yow ouverture bi sax wane na ko boo toogee ku bëgg sa làmmiñ day fastoo loolu moo tax ubbi naa ubbi mënumaa fexe ba ubbi bi jaar yoon waaw xam naa loolu maa ngi ciy dog ngant waaye nag kon booy tëj say kaddu mooy danga koy tëjee ci jàmbaari Sëñ Tuubaa ji nga xam ne mooy mu Mouhamadou Mountakha nga xam ne jommal na nit ak jinne ci nii mu jiite yoonu murit ci circonstance su jamono looy tëje ci sëñ Mountakha ñu yëkkatee ko jotaay bi. Euh, sëñ Mountakha moom dama yor fii xasida goo xam ne ab ab tiijaan moo ko def ndax xasida gi sax xëy na danañ ko jàng danañ ko jàllale ci safar mat na téeméeri bayit xam nga téeméeri bayit yoo xam ne yuusu mii defu ko mm. bu ko defoon ñu ne wala Moussa Kane mais dañ naan ah déet kooku sañ na koo def ndax sëñ Muntaxa ko yilif kon bu mënee wooy wooy ko loolu dara néew ci loolu moom euh, sotti ceeg def ci la mm-hmm. waaye ab tiijaan boo xam ne ma nga ca këram def téeméeri bayit ci sëñ Muntaxa téeméeri bayit ah, ana ana téléphone ba maanaam téeméeri bayit yoo xam ne ci baxar tawil la ko def nga xam ne léegi euh, sëñ Muntaxa dafa digal sëñ Muntaxa am sëñ Maamoor Pakal la ne ko nang ko na nga ko def yow itam na ko tontu yow itam tontu ko ci baxaru tawil sëñ Muntaxa sëñ Maamoor moom sëñ Cheikh Tedd moom Bambey moom ma ko yónnee ngir yéeme xasida gi yéeme ak waa ji li mu wax sëñ Muntaxa ci xasida gi euh, nga xam ne sëñ sëñ Muntaxa moo wax sëñ Maam Moor ne ko xasida gi moom mm. xaw ma gan waaye gi moom fonk naa ko lool mm. gis nga téeméeri dama damay ñëw ci question bi nga ma laaj ci ki mu doon mm. mi ngi ko tàmbalee ci munintu bi di faqadil bardi jaw fa sarimati xasit xasit gi foofu la ko tàmbalee familtu ila tilfone taaliba umsati téeméeri bayit la am na foo xam ne da caa wax sëñ Muntaxa ne ko anamu sax nee na nee na ko bi nga ñëwee Dakar di ubbi si Masalik tay bay doo yar naa ko gaaw gis waaye doy war nag moo daal dal ci waxtaan wi ndax daa mel ni dugguñ sax ci fulku njaareem bi dugguñ ci bare bare waaye nag jotaay bi du ko mate moom ah lañ lay bàyyi nga wër bayit bi rek bu ko defee ñu dog ngant ci nga xam ne ñooy topp seen jotaay bi di Khidma 28 TV muy télé bi leen toppal tànki sëriñ bi bismillah sama bi ngi ci biir xasida gi waaye da ko ne yàlla dogale ci histoire musta am ñaari président yu amug réeroo nga màndal leen ci ndoxum cofeel ci benn jataay boo xam ne da nga sëlmal door koo def musta am sëñ Muntaxa saxse bi dafa aalamiya maanaam sëñ Muntaxa persona sëñ bi dafa universel ba noppi yàlla da ko defal xabul xabul mooy ñëpp a ko nangul ci moom laa gis ku ñëpp rus ku ñëpp wekk ku ñëpp wormaal kenn desut àddina bépp laa wax loolu nag li yàlla maye maye maye moom xamaguñ ko ci kenn nag moom te jikko ji du caageenu doon gi mu doon Cheikh mun taxaa di doomi sëriñ Bassirou toog toogaayu sëñ Tuubaa déedéet mais jikkoy sëñ taxaa moo may sëñ Mountakha lu mu am. wormaal gi nit kersa gi yërmande ji mën a muñ gi mën a muñu suuf la yor mën a muñ gi ba mën a tegoo lépp lu mën a doon ak yeneen ak yeneen a yéen ji koy tedd nga yooyu nga xam ne boo ko doon lim fi ngay fanaan yépp daa daje ci moom loolu tax yàlla def ko ni mu ko def suñ borom xol yi jaam ñi yàllaa leen moom te nit ñi sëñ Tuubaa jaral na leen lu nekk buñ la nattee ba gis na yow bëggoo kudul yàlla ak sëriñ bi nit ñi dootuñu am ci yow sago li ko dal looloo ko ko yóbbee nit ñi lu baax lañ bëgg yàlla la ñu bëgg ak sëñ te gis nañ ne kii ku yàlla ak sëñ Tuubaa ci moom dara yàlla la bëgg ba mu jeex takk ak sëriñ bi nit ñi def ko niñ ko def sëñ dafa dal ci ci wet googu da cee nekk foo xam ne nii dawandoowu fa kenn am na benn naar boo xam ne da woy na sëñ Tuubaa xasida goo xam ne amoon naa ko man xasida gi bi ma ko jàngee ba mu jeex rek sëñ Muntaxa laa gis barke Cheikhul Khadim ndax daal ndax xam naa ko maanaam bi naar yi limee ki qualité yi sëñ Touba ak yi ne ci moom damay def bëy bu ma jàng rek sama jal jël sama xel sànni sëñ Mountakha gis ne dund na ko amul sax wax loolu nag bis boo ko jegee lu mu tuuti tuuti ci ngay xam li may wax mooy doomu aadama lay la bëgg-bëggin woo xam ne nii waxtu lay xool mi ngi xool ndoomu aadama gi yàlla def ci yow ba bu lay teral loolu lay teg bëtam su lay yërëm doomu aadama gi lay teg bëtam rawatina nag nga di jullit di taalu ba teg ci sa sikk la mun ta xam suñ mun taxaa kenn ku ne la nga baaxle la xool kenn ku ne la nga baaxle la bokk ak yow dara yi nit xuusu ci nit ku ne da ko bàyyee yàlla mi ko bind te téye ko ak jikkooy boppam moo tax mu mën a uuf àddina ndax nit ku nekk ak ni la yàlla bindeek say sikk li li sëñ Fall liñ na wax sëñ Fallu daana wax ne bang bang ñi ma boot xajoo naa ko sëñ Muntaxa ñi mu boot ñëpp xajoo na seen i bang bang oh moom kenn du ko dégg oh déedéet kenn du ko dégg moo tax boo nekkee moom jege ko lu tuuti tuuti ci ñi koy gën a wattu gën koo ragal ci ngay bokk waaw yàlla na nu ko yàlla defal waaye euh, nit la koo xam ne daal ku koy liggéey liggéeyal ko ci nit ñi ci wormaal leen ci yërëm leen ci bëgg leen ngir yàlla ak ci làddanti leen yeneen qualité yi mu dajale nag moom kooku c'est c'est extraordinaire loolu moom mën nañ fee fanaan vraiment mën naa doon émission boppam. allah sëñ Ablaye kon damay wax ne li ñu arab yi wax kama kama tadinu tudaan li nga leble lañ lay fay sëñ Muntaxa lim leble lépp man maay wax ne man nag laa wax lim leble lépp ñu ko ko. leble na toppe gu amul xalaat. te waxtu wi muy toppe mi ngi xalaat waxtu wi toppee mi ngi xam waxtu wi muy toppee mi ngi ku bëgg ak bañ waaye ginnaaw toppee na ba noppi rek jël na yëpp teg ne kim topp rek la xool doo xam xalaatam doo xamuk bañam doo xamuk bëggam déedéet tamit déedéet tam doo ko gis ginnaaw xas na la topp léegi question bi dama koy delloo si waat ndax noonu la ñëpp def ak moomam déet ku bari personnalité la ndax ñaari ñaar li koy firndeel rek nga xam ne moom laay tëjee mooy xam nañ ne Covid bi dugg senegal année bii nii keneen comme fi fekkoon ko dul sëñ Muntaxa catastrophe am. waaye xoola façon bi mu ko géré géré na ko ak diplomatie ak tranquillité ndax pression yi woon ci kaw sëñ bi bari na mooy nit ñi nit ñi jaaxle nañ ñu ngi ci kawam. gis nañ ne moo war a solutionner problème bi nguur sëñ mun Muntaxa lañ am ci kuñ yaakaar ne mën na leen a ci lii ñu nekk. ñiñ bokkal diine it sëñ Muntaxa la ñuy déglu mu régler problème bi te tiggatuñu waaw pënd jógut li nguur bëgg am na ko waaye moom lim bëgg am na ko mooy li nguur bëgg na ko am ndax buur la yàlla leen fi teg dana maslaak ñoom xëccoowul xeexut waaye ñim yilif danañ jaamu yàlla loolu la ko yàlla. kon Sèye Ibrahima maa fi de su ko wax koy jëf. ah déedéet bu wér nag du kese. Eh. Eh, moom moom da ko jëf moom moom wëcc bi rek damay wax ne moom bu nee tël rek nga xam ne moo fi nekkal yàlla. wallaahi lancé bu nee tëll ci mbooloo. Eh. nga xam ne kee fi nekkal yàlla. nit nettali na ci ci ci ci ci Fuuta. ci bi ñu doon def. loolu loolu laay tëjee lu lu doy waar gis nga sëñ tax sëñ Ibrahima. ñim yili ñim yili fii nii. Hmm. xamuñ ci moom dara. Hmm. gis nga ñee ñee mu dànd. Hmm. tañ di jullit seen xol set. ñu ñu jàppe seen bopp ni ñim yilif ñoo ñoo ko xam am na kilifa gu wax ci Fuuta ne li ko bëgg a tax a bëgg sëñ Tuubaa dëgg xam nga tukulóor yi dañoo mën a jaamu yàlla te mën a wér am na am na ko nettali nit ne ko maanaam diw li tax mu bëgg sëñ Muntaxaa ba gëmewu ko mooy ab lasaraarkat la waaye gis na ne fu mu tëyee kurusam guddi bu ba bañ war ko woon dara rek jëmmi sëñ Muntaxaa lañ koy woon nit nee na ma koo xam ne ab tukulóor la moo ma ko wax man directement ne ma diw sëñ sëñ diw ca Fuuta ma ne ko waaw mu ne ma bu yoree kurusam di wiir wirdi nii takkusaan ba jàpp ab tele seen image yu sëñ Muntaxa benn per rot day téye kurus gi ba sëñ bi daaneel kàddam mu door a àggale wirdam donc kon xabul bi ma la doon wax la ko yàlla defal mooy ñépp a ko nangul ginnaaw nangul na yàlla nag ni mu ko war a nangule nangul sëñ Tuubaa te dara desu ci nag ah sa yàlla moom lépp danañ ko nangul te duñ sañ a bañ looloo tax nag fu mu joxoñ nit ñi dëgmal ko kenn mënu ci ah ku bëgg ndimbal wala nga bëgg tawfeex yàlla noonu ci yàlla boole fu mu joxoñ nga dëgmal ko loolu la ko yàlla defal dafa mënuma cee sori nag te bu ma soree dinaa wax danaa wax danaa wax lu ne mëndoo waaw te loolu laay éviter <laughs> eh, ndax ndax wax nit daal dana la àgg foo xam ne mm. am na yooyu doo ci mën a xuus nag ci ci moom waaye gis nga liñ war a wax ci moom yëpp ay teggin mayewut ñu wax ko àddina di ko dégg waaye kii daal moom yàlla mi nga xam ne daal lu ko soob def tëlewul dara te ke te kenn du ko ne looy def nga xam ne ci coobareem lay sukkandiku def daal ñu ngi koy ñaan ci waxtu wii nii moom sunu borom ma nga xam ne mi ngi ñuy dégg di gis di ko toroxlul nanu dimbali ngir jëmmi sëriñ Touba mi nga xam ne yàlla la joxoon léppam ati yonent yàlla nooxin yàlla na ko yàlla